walxaqibatu lilmuttaqin wala udwanan illa ala alzalimin alsalatu walsalaam ala ashraf almursalin sayidi almujahidin wa qaacidi alqurri almuhajjalin wa sayidu jami alanbiyai walmursalin sayidina wa nabiyina wa xabibina wa qurati ayunina maulana muhammadin ibnu abdullah wa ala alihi wa saabati alxurri almayamin wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokk yi ñu miin a jàkkaar lool ci seen buntu télévision di GRTS ni ñu leen ko baaxoo di defalee rek amaat nañu mbég si mbégte dellu siwaat ak yéen ci seen programme xam-xam le di ñaan nag ngeen dégloo ñu xel yi te bañ ñoo dégloo xol di ñaanit ngeen jéggal ñu njuum te yàgg rëcc rëcc te xam ne alkamaalu lillahi mat yàlla rek mooy ki ko def mbokk ñu jiital ci suñu euh, kàddu di sant yàlla mi nga xam ne moom rek moo yeeyoo sant waaye tamit mu digal ñu ne nañu koy sant waaye mu sant ñu ñuy santante mu sant boppam itamit ah, moom yàlla moomu ñu sant ko bu baax ci may gi mu ñu may wax dëgg yàlla ñu fekkee ay ah, bés bu ay bii nga xam ne diggoon leen na ñu ne dina dinañu ñëwaat ak yen ci programme xam-xam le ñu julli ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom moo njëkk julli ci moom moom yàlla digal malaaka yi ne nañu julli ci moom waaye tamit mu ñaani tamit képp ku gëm yàlla na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali ñaan dooleeku leer ak dooleeku xéewal yal bu mu dëñ mukk di dotteeku ci sang bu tedd boobu ak i saabam ak mbooleem koo xam ne yaa ngi topp ci yoonam ba ilaa yawmi diin mbokki julli yi ñu ziyaara mboolem réew mi waaye tamit di ndokkeel mboolem réew mi ni ñu ko baaxoo rek di waxee programme xam-xam le programme la boo xam ne toujours day wëndeelu di ànd ak xew-xewu jamono di di ànd lépp loo xam ne jamono indil nanu ko te mu doon loo xam ne suñu ca waxtaanante njëriñ dina ca facc loolu mooy jubluwaayu programme mu xam-xam le naka noonu tamit lépp loo xam ne tamit jamono feeñ na ci jamono te muy doon loo xam ne mën na yàq moo xam ci wàllu yarin la moo xam ci wàllu environnement la moo xam ci wàllu sax nag jàng la ak lépp lu mu mën a ajoo ci dundu doomu aadama bi loole programme xam-xam le dina ci addu incha allah jëmale ci gémmiñam ba gis ne loolee lu yàq dellu na gannaaw waaye lépp luy yéwénal xëcc nañu ko ba mu jege société bi mbokk jullit yi ñu balaa ñoo dugg ci sunu waxtaanu tey ñu ziyaara mboolem réew mi ñu jiital ci ki nga xam ne moom la yàlla teg ci kanam réew mi di professeur alxaaji Yahya AJJ Jammeh sunu ko ziara ziara nañ mboolem ku nekk ci ron administration am waaye ziara nañ mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey ci wàllu nasaraan mbokk jullit yi ñu ziara yi tamit kilifa diine yi ñu teg ca bopp ba ka nga xam ne moom la yàlla teg ci kanam muy fadilatu cheikh imaamul akbar imaam Thierno Alioune Moaska sunu ko ziara ziara nañ aima yëpp ak asatise yi nekk ci dëkk bi yépp mbokk yi ni ñu leen ko waxee rek wa durru ma dahru kayfa ma daara dinañu ziyaara waaye boole ak ndokkeel mbooleem koo xam ne gambiyan nga moo xam nga yeewoo ci biir réew mi moo xam sax nag yeewoo ci biir réew mi ak foo mën a nekk dinañ la fa fekk ndokkeel la ci xew-xew bi nga xam ne xew-xewu jamono la te passé ci ay fan yu weesu ci sunu kannaaw ci sunu gannaaw mu doon li nga xam ne pour ñu waxtaanee ko wala pour ñu am ak tuuti as leeral dinañu wax ne ci ak cànkute waaye ci ak noteel waaye ak ci ak njaam yaa goo xam ne doomu Gambien nekkoon na ci ci ay at yu yàgg nga xam ne ñii nga xam ne ñooy western wool bi jëloon nañu suñu dëkkuwaay jëloon nañu suñu doole jëloon nañu suñu xelaat waaye jëloon nañu suñu lépp loo xam ne méngoon nañu ko ñu def ko muy seenu moomeef ba la xewee nag yàlla mi nga xam ne moom moo bokk moom jaam ñépp am ñenn ñoo xam ne dañu bañ moomeefuk yàlla sàkk ci biir jaam ñooñu ñoo xam ne dañu koy tuddee seeni moomeef yàlla xëy nag tàbbal ci xelum ñi ñu moom ne nañu laaj seenu àq ak seenu yelleef te ñu yeeweeku ci buumuk moomeef loole ba tax waral ci àdduna bi ci réew yu bari wala ci ay gox yu bari am ay jàmbaar yoo xam ne takkoon nañu seenu ndigg ci ba jamono di teel ñu laajoon aq ak moomeef gi nga xam ne buumuk moomeef la pour ñu yeewi leen ca waaye naam noteel la woon rekk ak gën a teel yeewu ci xelaatin moo taxoon rekk ak moomeef di jóge ci doom aadama jëm ci beneen doomu aadama waaye nag yàlla mi nga xam ne moo bokk moom jaam ñi ah moom yàlla moomu ci dogalam ba ka forcé woon moomeef te moomul yàlla teggi loxoom ci googe moomeef teg ko ci delloo buum ca boy boy ba muy ñu delloo moomeef ka ko moom te mooy boroom bi tabaraka wa mu delluwaat nga xam ne masta dëñ di borom waaye tamit masta dëñ di moom ay jaamam ka ca dugaloon loxoom moom sunu boroom mu teggi ko waaye tamit jaam ñi am seen xaafiya ngir delloo ci seen moomee fug borom noonee la gisee li nga xam ne mooy indépendant bu Gambia mbokk yi ci at yu yàgg ci taarix nga xam ne jébbal nañu réew mi ñu fi juddoo yaroo fi dëkk fi pour ñuy xelaat di doxal seenu doxalin waaye tamit di liggéey di def ci seeni poos waaye tamit di jéemal seen bopp ba kër ñuy attan seen bopp pour yóbbu réew mi ca kanam loolee yàlla dogal ko mu dem ca colonialiste ñu génn ca ñëwaat ci yeneen jamono nit ku ñuul amee ñu nga xam ne sunu administration lépp ci sunu doomu réew la tege waaye ci sunu xelaatu réew la tege waaye ñu dëppale ko ak sunu culture ànd ak sunu doxalin bi nekk loo xam ne moo sunu culture ñooy ànd dëppoo loolee di dox ba jamono may ñu tey ñu fekkee ko ah ñu di ñu ko nettali li ñu fekkewul am sax ñoo xam ne fekkee nañu lu jiitu la waaye tamit fekkee li xew tey kon war na noo sant yàlla waaye delloo yàlla njukkal ci xéwal gi nga xam ne yàlla defal nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa ali dafa wax ci benn hadis ne wax yi la yàlla defal nee na kooku ak cant la nettali yi yàlla defal nee na kooku cant la nee na bañ a nettali lii la yàlla defal nag kooku weddi xéwalug yàlla la te yonent bi alayhi wa ali nee na nit ñi dañoo war di santante nee na santante ci jaamu yàlla la bokk ndax ku santut nit doo sant yàlla nee na yonent bi sallallahu wa sallam nee na takkatoo booloo joxante loxo ànd liggéey sa réew yonent bi sallallahu alayhi wa ali nee na loolu kat nag nee na yërmande yàlla la neena na waaye takkalikoo bedd ko ci xeet nee na féewaloo nee na kooku mbugal la mu yàlla wàccee ci seen kaw te it nag loola ñun ñoo koy teg ci sunu bopp mbokki jullit yi